teewal fii président de la république waaye teewal fii képp kuy kilifa ah nguur nag xàmmewul ku dëkk fii wala ku dëkk fële Sénégal réew la boo xam ne réew benn la tey bu ma fi teewee teewal naa fi képp kuy autorité ci fii ci Thiès teewal naa fi képp kuy autorité ci gouvernement bi teewal naa fi cabinet son excellence le président Macky Sall parce que loolu la ñuy sant nañu jege askan bi nañuy wax ak ñoom nañu jël seen mébét lépp luy préoccupation ñu yéegal ko ci kaw ci loolu nuyu naa wax dëgg yàlla kilifa yu fi teew yépp ci président gare routière jóge ci monsieur maire mi teew fi ci président gare routière yi nga xamante ne jógee nañ ci biir réew mi gis naa fi Fallou Samb Modou Boye nga ne Pape Sarr Petersen boo maraîcher monde transport daf ci monde bu am solo boo xamante ne bu kenn xewlee day mel ni ñëpp xewle loolu am na ko fi lépp sànq ci diggante gélém ak Mbott loolu euh, dëgg la ci monde transport ci solidarité ci initiative man jàppewuma transport comme secteur boo xamante ne ña ca nekk euh, ngeen baal ma ci kàddu gi amuñu solo foog naa ne ñu am xel yépp les esprits avertis loolu duñ ko jàppee noonu parce que transport bu amul doo mën a jóge sa dëkk wala jógee sa kër dem lijjanti ji la lay may loolu kaka yor kooku ko am solo la ci économie te loolu président xam na ko tey ñu ñëw fii ci turu son excellence le président Macky Sall pour teewee lu ñu wax benn kuréel gu mag boo xamante ne ñu ngi koy taxawal fii ci cees muy union régionale des chauffeurs et transporteurs de Thiès union boobu nag maa ngi koy wax ci nasaraan ne dafa méngoo ak gis-gis ak doxalinu président Macky Sall ci wàllu politique gu développement transport mu def ko ci biir plan Sénégal émergent ñu ngi dégg lu ñuy wax acte trois de la décentralisation mu jël gox goxaan yi def leen territoire yoo xamante ne ay gox yoo xamante ne ci wàllu koom-koom ñoom ñoo ko war a xalaat nañu doxalee seen koom-koom loolu nag képp kuy yëngu ci secteur privé ci domaine transport wala domaine yeneen domaine dafa war méngale gis jëm gis-gis jëm ci développe ci doxalin boobu ci loolu nag laay gërëmee Thiès di ko di si jiital Modou Gueye mii nga xamante ne moom ngeen jiital euh, di ko gërëm ci gis-gis boobu bu ngeen li l'union régionale des chauffeurs et transporteurs de Thiès bëri na ay mébét yu ngeen di wax union boobu mën na ko jël waaye maa ngi koy ñaan euh, maître ak yeneen compétence gis naa fi ay universitaire yoo xamante ñu ngi gunge chauffeurs yi ci xalaat bi ñu def ko anam boo xamante ne dina nekk GIE dina nekk aussi association lu tax GIE pour mën mën a def business mën a créer ay cadre d'opportunité ay cadre yoo xam day def xewal pour chauffeurs yi day def xewal waaye day def xewal képp koo xamante ne chauffeur nga transporteur nga wala da ngay yëngu ci biir garage bi parce que ku def gis-gis xool ci garage bi di nga gis ne euh, transport naam waaye ñuy jaay lekk ñu ci biir ñeneen ak ñeneen ñu ci biir transport famille la bu yaatoo yaatu boo xamante ne union bi dina ko mën a jël ci loolu ci gis-gis boobu acte 3 de la décentralisation président Macky Sall def ko pour que sañ-sañ yi ak man-man yi mën a feeñ ci gox yi loolu gis xaw ma ku leen conseiller lii waaye xam naa ne maître Sall <laughs> mu ci seen biir ci xam-xam bu rafet bi ci gis bu rafet bi ñu ngi leen koy ñu ngi leen ci encouragé président loolu la bëgg président Macky Sall nag Euh, suñ ko teewelee fii danañ wax ne nit la ku bàyyi xel monde transport ci lim def priorité ci wàllu yoon ci wàllu ay lépp luy infrastructure bu yombal seen liggéey yéen euh, ñu yëngu ci transport waaye aussi ci seen wàllu métier maa ngi fàttaliku ci jamono yee passé ba ñu xalaatee suñu biir ñu ne ah transport de yàgg na nekk loo xamante ne Euh, waxuñ ne ñi ko jiite woon dañ doon def euh, liggéeyuñ déedéet liggéey nañ naam parce que buñ liggéeyutoon lii du am euh, je dis bien képp autorité bu fi nekk syndical wala mu nekk ci leneen liggéey na moo tax mu yegg si fii waaye liggéey boo gis nag àdduna fu mu toll dafay yokk dinaa koy wax saa su ne ne àdduna di nga liggéey ñàkk suñu borom jël borom xam-xam ne ko demal ci secteur boobu nga yokk leen yokkin boo xamante ne eh, nangu ñaan la ca ñu liggéey ca mag ñu liggéey donc mag ñu fi liggéey ak kilifa yu fi nekk yépp ñu ngi leen di gërëm ci loolu parce que lu ñu liggéey dafa mel ni Séné euh, Sénégal lañ ko liggéeyal te ku liggéeyal Sénégal son excellence le président Macky Sall mi yàlla dénk euh, nguur gi moom la ko liggéeyal. ci loolu ñu ne demoon ci président ñu ne ko président ak kuréel gu ñu wax kaar naataange chauffeur yii kat dañu nekk ñoo ñu am solo buñ daggee assurance. ñoom bokkuñu ci passager yi la ak oto bi te taxawal nga lu ñu wax couverture maladie universelle président dañu lay ñaan nga may leen mutuelle de santé moom ci boppam mu ne maa koy subventionné à de quatre-vingt pour cent mutuelle de santé boobu génn na Thiès gi bokk na ci ba nga xamante ne chauffeur bi dana mën a feebar faju ci euh, ñaari junne bu nekk mu joxe ñeenti téeméer am na ñu bëri ñu ngi ciy faju actuellement loolu nag lu am solo la loolu cadre la boo xamante ne dañ ko déterminer rek lu mel ni union yi union yi di taxaw un peu partout dans le pays ñu koy ñaan kilifa yi fi teew kilifa yi jógee Beaux Marchés kilifa yi jógee euh, Rufisque ak kilifa yu jóge ci yeneen gox ak ñeneen ñu ñuy dégg ñu taxawal seen i union union yooyu ñooy tax yooyu yu mel ni faj yu mel ni yeneen yoo xamante soxla na chauffeur yi ngeen mën ko jël en charge parce que tollootuñ jamono ji nga xamante ne man damay nekk sama xam-xam màcc ci beneen domaine ma ñëw war leen xalaatal déedéet yéenay xalaatal seen bopp joxe ko te xam nañ kan mooy son excellence le président mag Sall amul benn xalaat tey li ngeen fi wax yëpp ci marodage li ngeen fi wax yëpp ci permis yaa ñuy jàppee ca gox bële ñu koy jëlee ca ca ca beneen service ah euh, loolu danañ ko yeggee président de la République ñaan ko ay amélioration waaye service yooyu di ko def nag ñoom si am nañ formation yu yu am xam-xam yu màcc waxuñ ne naam la ñuy def tout est parfait mais loo gis ci àdduna bi dañ koy dañ koy euh, euh, defaraat di ko yeesalaat ba nga xamante dina méngoo ak bëgg-bëgg askan bi nga xamante ne moo ñu fi teg donc euh, kooku ñu teewal fi tey mu sant ñu son excellence le président Macky sal ñu teewal ko fépp ci Sénégal ci yar ci teggin ci wax ju rafet ci aussi li nit ñu soxla liñ soxla seen mébét mu jot ko ci anam yi ngi ko war a jotee nam gën a rafetee loolu moo ñu fi teewal tey waaye nag teewal boobu nag am na boo xamante ne sama mbiru bopp la muy wóllëre bu ma yàlla dox bu ma yàlla teg sama diggante ak monde transport sama cër bi naam yàlla tudd na ko ay euh, balaa may juddu waaye yàlla moom moo ko joxee ca audience boobu 6 mars bi ma ànd ak chauffeur yi bañ demee pour pour régler li ñu wax bon de sortie ba ca nekk ci Tëngéej boo jëlee taxi di romb Tëngéej bon de boobu régler le programme un chauffeur un véhicule muy junnee oto avec phase sept euh, phase sept téeméeri oto ak programme santé boobu ci la yàlla def président nommé ma foofu Pape Sarr wax na ko léegi nommé ma foofu donc AD bi taxaw na Koungheul garage Koungheul taxaw na boo Maraîchers taxaw na Petersen dina taxaw na fii Thiès dina taxaw jurbel dina taxaw fépp ci gaaru gaaru ceer yi dina taxaw si Sénégal yëpp parce que ñun ñoo ko bokk cër bi ñoo ko bokk euh, euh, wax yi rafet yëpp nekkul ci man ci yéen la nekk waaye bu rafetee tamit pour mu jig ñu nañ ko teg rek ca la yàlla waxoon ci yonent yàlla Muhammad ne ko dëgg day ak yaa rafet jikko fii ba àdduna bi di di jeex ku rafet jikko boo ko méngaleeg yonent yàlla Muhammad sa bos dootu saf donc euh, ñuy sant bu baax moo du di la féliciter di ñaan ah wax naa fii ci français ne maa ngi gërëm aussi Abdou Diakhaté parce que ba mu fi mujj ñëw ma Modou yaa ñu introduire woon waaye moo ñu recevoir woon fii euh, ci programme santé yooyu ñi fi dugg ci région de Thiès moom moo leen ci dugal il n'a pas démérité liggéey na liggéey bu am solo waaye àdduna noonu la euh, fii ma toog ci sama post bi du maa ko njëkkee du maa koy mujjee moom it noonu la moo Gueye aussi ñu ngi koy ñaanal ayam yàlla def ci jàmm yàlla takkal euh, may ko ci ndam yu yaatu yaatu waaye ànd boobu rek moo mën a moo mën a tax monde transport dem ca kanam sa doyen Fall wax na ko léegi monde transport doole bi ngeen am système de solidarité solidarité ci transport rek nga koy gis dawal dawal ba toll fenn fi ci ay at ci ci wet wala wala ñàkk wér wala ñàkk mën liggéey ngay ñëw ci garage garage bi kees gi di la jël en charge ci wàllu ci social loolu monde transport boo ko ci xool booy xool système solidarité boo ñëwee ci monde transport foog naa di nga ci gis lu doy doy booloo moo leen des moo des maanaam ànd bul gis ne mbub dafa ñëw jógee fële naam mbub lu ñuy wax kilifaj la kilifaj maanaam dafay ñëw ak ay solution ñëw accompagner kilifa yi yéen kilifay transport yi ci loolu wax dëgg yàlla ci lañ ànd góor waat maa ngi leen yu baax a baax ci loolu loolu lañ ànd euh, Mortalla wax na ko fi sànq ci wax waxin yu rafet yi ci anam yu rafet yi waaye loolu yëpp wax dëgg yàlla may ñaan monde transport ñu ànd nekk benn pas les revendicatives pas ay grève président Macky sal nekk na président boo xamante ne loo wax boo xamante ne xam na ne lii méngoon na ak yoon ci saa si du réfléchir dama ko jege xam ko du réfléchir danaan nangu na ànd naa woon ak 173 gares routières dem ca ca moom gis nañ ne lañ ko wax yépp ci saa si sans réflexion day jël téléphone am au l'administrateur général du FONGIP ndeke ndax ne ko ndax mën nga génne junne oto junne oto du ay taxi rek mu ne ko waaw mën naa garanti 1000 véhicules mu ne ko garanti la 1000 véhicules pour les chauffeurs du Sénégal waxuma les chauffeurs de l'APR wax waxu coloration politique daan ne les chauffeurs du Sénégal donc nous ne sommes pour ber naan waa APR rek déedéet dañoo ko def pour chauffeur Sénégal président Macky Sall président wu Sénégal yëpp la waaye nag ñu ngi liggéey liggéey boo xamante ne pour que bu ñu demee ba nga xamante mën nañ ko réélire ñu réélire ko dès le premier tour loolu nag am nañ ci am nañ ci droit ñu sant yàlla baax du julli ci yonent yàlla Muhammad allahumma salli ala sayyidina